kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ku ne xam ne nag ñu ngi jëm dimanche 26 juin Ada Fass qualifié numéro 2 mu mel ni ñu ngi Fass fii ñu nekk moom mooy terrain Santhie Ada Fass ba ñu ko xamee ba tey fii lay defee open press am tey nag def na ko ba pare yëngu na mu ngi nii taxaw ji li ñàkk tooy xep macha allah aada ñu ngi lay ziar. jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul joola almisba karafa maa leen nuyu di leen fay di leen ziar. aada defe naa ne tey fi mu nekk nii li ñu naan wuroo dem nekk mu waxi mag dem dañ taal ay fan yu néew sa digganteeg Coly Faye mel ni dimanche ngeen di bëri aada tey ku gis ngay yëngutu di doxal daa mel ni aada pare na ci côté yëpp fi mu nekk nii. waaw daanaka moom pare nañ bu yàgg pare nañ bu yàgg waaw pare nañ bu yàgg ndaxte làmb ji moo ko laaj quoi. waaw làmb ji moo ko laaj laajul leen lu dul liggéey te xam nañ ne liggéey nañ waaw. liggéey nga bu baax. liggéey nañ bu baax a baax a baax si côté bépp. Mhm. am na loo xam ne xaw na jaaxal sénégalais yu bari combat boo xam ne des na. une semaine presque ñu xëy ñu ne dégg na aada dem na Espagne lan la aada boo nee pare nga lan nga wuti woon Espagne lu xewoon. daa am lu fa doon liggéey rek lu tuuti lu tuuti lañ fa doon liggéey nax da daa amoon benn programme bu ñu fa doon liggéey bu yàgg waaw sama coach bu nekk foofu ne naa bàyyi ba last time rek ma ñëw. ma liggéey ko yàggul quoi moo tax ñu dem fa avant avant combat bi liggéey ko. Mhm. yàgg adversaire bi ni ngeen di attaqué te kere ci ëpp ci face à face bi attaqué na la nga attaqué ko mu xamal la ne doo bandi dina la xaw ma nan la ko waxee ti ah am na nu ko ko waxee de. linja linja dina la linja voilà yaa ko leeralal sa bopp. Mhm. dina la linja linja boobu mu lay préparé te Coly Faye di jàmbaar. Mhm. ni waa waaw jàmbaar la mais man onze combats rek léew ma. sama premier combat ba sama combat euh, kenn kenn musuma dàq ma daw si làmb musuma reculer te sama làmb musul ma deux minutes. waaw Babacar loolu bu wax day wax lu ko neex rek. Hmm. làmb ji moom xam na bu baax ban làmb la man tamit xam naa bu baax ban combat la. Hmm. te incha allahu rabi dimanche yàggatul. dina lépp lépp dina leer uh-huh. waaw. kon li Ndiago muy dox di wax daal àndoo ceeg moom. waaw incha allah dimanche yàggatul. mooy daf may Lindia maa ngi koy xaar. Hmm. mu ñëw Lindia moom. mu ma gis ne Ada def nga ñaari sorte ñaari victoire bii mooy sa ñetteelu combat ci xale lan moo la may loolu et façon bi ngay bëree léegi dafa xaw a jaaxal ñu bare bare bare bare Babacar sport def ku ma gis xam na ne physiquement coach bu ma gis xam dina xam na ne kii kat physiquement taxaw na waaw physiquement sport la quoi làmb la te làmb sport la à leneen Babacar damay liggéey saison bi yëpp dama ko entraîné dama tegle trois combats bi ma sama troisième komba waaw athlète laa quoi man athlète laa damay damay liggéey damay entraîné. moo tax combat bi jaaxalu ma benn côté. Coly jaaxalu adversaire bi moo adversaire bi moo rey làmb ji man jaaxalu ma. Coly daa rey làmb. trop mais le 26 dina noppi incha allah. yéen ñaar ku a rey làmb mag bu dul jox bon exemple la. Coly Faye xale bi moo koy jox bon exemple nag teg ko si yoon. da laa def loolu naqari xanaa. xale bi moo koy teg si yoon jox ko bon exemple maa ko wax. incha allah incha allah noo koy tege ci kaw yoon da koy dóor mu daanu wala da nga koy jàpp yëkkati gaay doole daan. mooy daf may linjaa boo linjaa ma teg ko si yoon. dafa wax ni. waaw bu dee prix. Ada Fass mu dox sa kaw. xeex ak yow teg la loo attanul daan la ñibbi. loolu bu ko waxee boppam lay naxa waa këram ku tiim Ada Fass ne ko dama lay duma dàq la daan la loolu da nax sa bopp ñu ay morom yu bëri waxoon nañ ko fii fuñ mujjee Ada dafa ne périm ñu daanu ñibbi te incha allahu rabbi dimanche moo ko tee daanu ànd ak ay mbokkam dem ñibbi. nee na ciblem Fass du yow yow da nga cee sës rek yow est ce que jàmm gën da ngay dugg génnaat wala da nga fay continuer di xel di dugg. dëkkul fi ngay wax noonu moom dëkkul foofu moom caaro yi géej la dëkk waaw moom laay bëril waaw bëril ma waa jàmm gën jàmm gën dama fa am ay fans am fa ay nawle am fa samay mbokk Baay Faal waaw du man waa jàmm gën man waa caaroy la te caaroy am naa fa ay mbokk man moom la nga wax boppam mu génnee doomu aadama yu mu dugal man moom kese la si biir géew bi voilà ndax faas la mujjee bi mu fi ñëwee sa mag la daan général bu faas ma gis tey Lagros ñëw Pape Ndoye ñëw Doudou Mateur ñëw mu mel ni mbir mi fi mu nekk nii daa mel ni li mu wax tamit dina naqaree dindi de sibilam bi mu ne du yow kese Fass. incha allah Babacar dimanche yàggatul man lu may def dama ko gëm duggoon na Fass amu fi ndam loolu du ndam ndam daa mbër da koy daan loolu mooy ndam lii du ndam bu ko sax def ne ndam xale da ngay daan man damay jàpp daan te incha allah rabi dimanche koy jàpp daan. danga koy jàpp daan. daan incha allahu rabi. sa combat yi passé yàggul de. bii mooy raw. bii mooy raw. bi day gaaw ki day simba rek. Babacar ki ki ab bu ne prib xalaatul dox sama kaw. maa ko du dox sama kaw. léegi bu doxee sa kaw nag. xam nga benn affaire man benn affaire laa bu dalee sama kaw day gaañu ma dalee si kawam day gaañu am doole nekk xale bu ndaw. tey boo gisee Lac Rose ñëw di sa mag Pape Ndoye ñëw Double Moteur ñëw ñooñ tamit seen ñëwaay fii lan lay def si yow. loolu dama koy sant yàlla di ko di ko di ko gërëm bu baax a baax. ndaxte man Lac Rose moo tax ma dugg si làmb loolu du ma taay di ko wax Fallou bu ngay xam boobu xale laa maa ngi jàng école mooy bëre ay saa Fallou ay premier combat am stade Iba Mar man damay gore ba xëy dee ndaxte Lac Rose Lac Rose sama grand la maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm Bab Ndoy waxi noppi sama grand la maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm Xaadim Baye Fall double doorom rëbës maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ne gis naa teewaay bi kontaan naa bu baax a baax bu ñu amee làmb yàlla yàlla may ndam. Euh, tey looy tey ni nga mel nii Fass parce que li ñu seetlu ci a ngi dox mais mënuñu dëkk bi Fass ni fi dëkk tey jafe na ma gis waa Fass yëpp génn topp la aada loolu lan moo war aada ci làmbam ci carrière sant yàlla rek ndax de ay xale lañ dox suñuy tànk papa suñuy tànk maam. su mel ni maam góor gi Ndiaye ku su mel ni suñu papa Mbaye Gueye yàlla na suuf suñu papa musa Ba Gueye suñu papa Bida bëri nañ suñu papa suñu maam yi nekk fii ndax de làmb ku ku xam làmb xam na ne làmb Fass la sosoo ñëpp dañuy daw laa ko rek mais Fass la làmb sosoo fii làmb Jola làmb Tukulóor waaw ku xam article làmb di nga xam ne làmb faas na sosoo waaw da ko di ko sante suñu borom bu baax baax baax lépp yàlla la waaw. looy wax supporters yi supporters yi si jàmm ñibbi ak supporteru Ada ak supporteru Coly Faye. waaw di wax supporters yëpp rek waaw di ko tàmbalee sama bos no à la violence képp kuy dem stade na nga sànq sa ba jekk parfum ànd ak sa mbër ba biir stade toog supporter sa lu neex. mu daan ñu ànd incha allah ñibbi te kenn bu la kenn bu bu mu laalu siège stade bi kenn bu mu laalu siège e bi incha allah ngir yàlla kenn bu benn supporter laalu siège stade bi ndaxte ñun stade bi lañ am ñun stade bi lañ am stade stade bi mooy suñu lépp làmb lañ am làmb lañ am ndaxte carrière dafa gudd nekkul mën a qualifier rek ndaxte sama carrière après qualifier am na keneen di wax saa civilisé supporters yëpp képp ku ñëw stade rek na nga ñëw la violence toog si sa mbër mu tuus baaxu ma daan qualifier deux ñu ñibbi si incha allah. gërëm ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. di gërëm képp ku jàpp si waaw maa ngi gërëm ñëpp barke Serigne Saliou Mbacke du ma limee rek damay ndakaaru bi yëpp ndakaaru bi yëpp ndakaaru ndakaaru ndakaaru ron maa leen di gërëm du ma benn benn ndakaaru ron maa ngi gërëm képp ku jàpp si làmb allahu rabbi bu ma yàlla may ndam maa gërëm ñëpp barke Serigne Saliou Mbacke yeew maa ngi yeew am na sax yeew yu nekk biir Thiaroye Géej géej gi géej gi maa ko moom. maa ko moom. Rasoul Keita. Daaray maa ngi